ay coow li bari na de. waaw Birame Yacine. coow li bari na de. Birame Yacine ñun du ñu ñooñu ñooñu du ñu ñooñu. Aliou ñëpp ngi xaar combat combat bi fan la Balla Gaye jëm <laughs> ak noo gisee lambi démb ji Aliou daal gars daal jaaxle na coow li bari na àdduna yëpp ngi leen xaar. dëgg Balla Gaye yomb na moo tax nga ne gars yi ñemewuñ leen man xam naa ne gars yi ñu ne woon dañuy coow rek dañuy coow rek te dañuy coow rek ñun duñu ñooñu te ñooñu duñu ñu ko. Ada Diallo Mbaye ak benn de. non Aziz Aziz lan mooy problème bi Aziz lan mooy problème bi. non non bul wane. Aziz Aziz bàyyi ba gars yi ñëwee rek saa bu ñu ñëwee ñu ngi leen a xaar mais ñëwewuñ ñu dañuy coow rek. da ah, nga yaakaar ne gars yi ñëwuñ leen. non gars ragal dañoo bari de. mais fii làmb gi toll nii ñëpp nee nañ combat Balla Gaye numéro 2 Modou Lo ñu nee nañ combat Balla Gaye numéro 2 Modou Lo combat Balla Gaye Siteu. dèjà coow li bari na trop Aziz coow li bari na trop ñu nee nañ Balla Gaye numéro 2 Siteu loolu xajul arène nationale waaye dañ ne tâche bi nekk ci kanamu Modou Lo Modou Lo ñu di contre Balla ñoom ñooy choisir daal ñu ngi ñu ngi toog di xaar on n'est pas pressé mais gars yi dañ yi dañ ragal. Ah, bala nga doon xam ne dañuy ñëwee semaine bii ku ci ñëwee te nekk jàmbaar jëlal avance. dëgguñu kenn mais dawuñu kenn. ñu ngi leen di xaar. wala te ñu leen a boole ko. ñu boole kenn kenn. kenn avril kenn juillet ah bu leen neexee. mais non gars yi ñemewuñu dañu ragal. non Aziz ñeneen ñeme yow Aziz jël ñaari avance yi jox ko Modou Lo ak ak Siteu. mën nañ ci fit yi lay def Aziz ni as dégguma li nga de Aziz non non non non non de te dafa de mais Balla Gaye numéro bi Balla numéro deux ñaari avance ci diggante Modou Lo ak Siteu. yi ñemewuñ ñu bàyyi ba gars yi bëri ñun moo jafe. Modou Lo ak Siteu ñemewuñ Balla Gaye dëkk ñu yomb na mais bëri ñu la jafe ñii dañ ñuy moytu ñii dañuy wër wërlu waaye wiir wiir jaari yi. dafa mel ni Balla Gaye xiif na ci të. non non non ñun amuñu problème dëkkuñu kenn Balla Gaye mi ngi xaar yaakaar naa ne incha allah gars yi léegi seen fit dal bu seen fit dal ñu ñëw. <laughs> mais dafa mel le roi des arènes mu teg titre roi des arènes Balla Gaye teg l'empereur des arènes. waaw as loolu ban xalaat nga ci le sport va gagner mais bàyyi ba gars yi ñu rek xam nga gars moom fi mu toll ñeme wuñ ñu de xam nga nag suñu tàkkusaan moom. le retour de Balla Gaye numéro 2. ah dama de Balla l' empereur. waaw. dëkk ko yomb na mais bëreeg moom a jafe. gars coow la fi nekk rek doomu dugalal sax. papa yàlla amin bu ndaw. <laughs> Ah, <laughs> Determined to 打电话去。 Hey, John, how do you do? Hey, John, how do you do? Hey, John, how do you do? গোল্লায় ফান অনেক এমনি রয়েছে গেঞ্জিরি গোল্লায় ফান অনেক এমনি রয়েছে গেঞ্জিরি গোল্লায় ফান অনেক এমনি রয়েছে গেঞ্জিরি গোল্লায় ফান অনেক এমনি রয়েছে গেঞ্জিরি গোল্লায় ফান অনেক এমনি রয়েছে I Hello, champion d'Afrique Laye Ndiomboor laa dal yaram géej gi noonu ndeysaan ndeysaan pour loolu ñu bëgg Yeah. मांगे मंजू खुशी के Abu Dhabi, Abu Dhabi, you are not a liar. la ilaha illallah dafa mel ni Modou Lo ngi Sa Touba la noonu Sa Touba ni roi des arènes waaj a dugg si Sa Touba tey loo indi Sa Touba ak Mbaye de Sa Touba loo indi tey Sa Touba loo indi tey la ilaha illallah Sa dafa mel ni Modou Lo ñu waaj a wàcc Sa Touba looy indi mu ngay ñaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ay waay ay waay lii lan la ñoo ngi may dàq Abdou Aziz Gueye ngi may dàq Abdoulaye Gueye moom mooy dàq. ah waaye dama ne dama ne dama ne Sa li ma gis lan la. gërëm. laa ilaaha nee na ma guddi guddi parcelle. Sa nee na ma guddi guddi tey diggante Modou Lo Siteu. Aïcha Mbengue Mboye. ndeysaan. nañu bàyyi xel bu baax. le roi des arènes doon dugg si. le roi des na ci xale yi nga xam ne. waaw ko maa la ne. ndeysaan. moom la ñu tuddee woon. ba jëloon doon dugg Badjuloo ngi doon dugg si. Badjuloo ngi doon dugg si. George Kouat. le grand champion George Kouat. ñu ngi lay ziar. ndeysaan. tey daal tey daal tiit naa. Sidi Jambar. tey tiit naa tey tiit naa nga préparé yaa papa yaa ndeysaan gars yi gars yi xam. waa kër Mor loo ngi doon dugg si. laa ilaaha illallah. oh. Abdoulaye Gueye may dàq Abdoulaye Gueye bu ma dàq. Ah. jàpp ci rek Abdoulaye Gueye. nan nga wutal ay séeréer. bokk na ci xale yi nga xam ne. ndeysaan. Sakku yàgg na ak lamb. ba ko sosu kuwaat la. da ngay gis loo leen mës a gis. dégguma sortu koor nga ne. da ngay gis loo leen mës a gis. laa ilaaha illallaah. ah. sortu nga ne. dégguma sortu koor nga ne lan. da ngay gis loo leen mës a gis. laa ilaaha illallaah. ah. ndeysaan la mën a jënd Modou Lo. ah. tey xamee wu ma la. as xamee wala tey as ki kan la as tey da ngaa lambe tey de as fan la mos a toll as fan la mos a toll ah as fan la mos a toll. xoolal bés bi yaa ma ko gën a xam bés bi dafa xoolal yaa lamb waroo ñoo laaj dara yaa ñu ko gën a xam lépp yaa ñu waxul ngeen bàyyi ñu rek. la ilaha illallah. Nabou yaa daan. ah xale bu tool bu gën kër. xale bu yore Nabou yaa daan. maa ngi ci tur bi. dama ne. Serigne Baye. ñoo ko may. Nabou yaa daan. ndeysaan. ndeysaan. Sa Touba am na lu muy xaar. ah Serigne Baye. tey Abdou Aziz Gueye xàmmee ma ko tey Abdou Aziz la tey tey Abdou Aziz Gueye playboy la tey dafa mel ni 913 CP. AA 913 CP. oto boobu ku ko moom nee na nga dem xooli ko veer yi dafa tijjeeku oto bi ah. ko moom AA 913 CP ku moom oto boobu nga dem xooli ko. Monsieur Yacine Monsieur Guédiawaye troisième combat ci biir géew bi troisième combat ci biir géew bi Siri Jambar Papa ñu préparé le cas de Modou